laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi barakaatu ñu ngi nuyu mbokk yi ñuy teewlu yëpp ci turu jëwriñ ji toog di jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall di sëriñ Amdi Fall mu sëriñ Modou Mbenda di ñaan yàlla sunu borom mu guddal aw fanam te wéral ay cëram ba naal yi mu am ci liggéey bii mu def si lu kawe njortam te ànd kook taalibe yëpp di jottali li nuyoo bàyyi ko ci moom jëm ci jëwriñam di moo du Mountakha di ko ñaanal mu yàgg te wér ba liggéey bi mu taawu sunu borom may ko mu yóbbu ko fu kawe njortam te ànd kook murit yëpp di ñaanal njabootu Sëñ Tuubaa gépp nag waaye di ñaanal ak di sant ak di gërëm njabootuk boppam gi di njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall di leen gërëm ci li weesu ak li ñu toll yëpp di am yaakaar bu baax si lii nu jëm yàlla nu sama borom defal leen nu raw lii nga xam ne noonu la nu weesu di jottali ndigal loo xam ne nag mu ngi bàyyi ko fi moom jëm si mboolem njabatug maam Cheikh Ibrahima Fall gi si liggéey boo xamante ni bii dañ ko koo sant boo waxee dañ ko koo sant nag mooy dañ koo sant rakkam di ab taalibeem muy Serigne Fallou Fall moom Serigne Abdou moo du Modou taxaa jëwriñ ji digal ko mu dem ab ruuj sa tool ya nga xam ne mooy céyal sa jolof sëriñ bi wax ne mi ngi digal képp koo xam ne kii sa yaakaar sëriñ bi wax ne mi ngi digal ñu yaakaar Cheikh Rafal ñëpp nu waajal liggéey boobee fas yéene dem ànd kook sëriñ Fallou Fall moom sëriñ Abdou Sakkoor ba ni ko sëriñ Mountakha bëgge mu amee ko noonee mu ngi koy digal njaboot gi yëpp ku yaakaar Cheikh Rafal muy buntu kër yëpp ñëpp waaj ko nga xam ni rek xam ni liggéey bi benn rek la. moom muñ ko santee kër kër sëñ Abdou Sakkoor mooy sant nañ ko kër sëñ Aliou mboor Mbawar sant nañ ko sëñ du Mbend sant nañ ko kër yëpp kon sëriñ bi bëgg ñëpp maa si àndandoo ànd ak sëriñ fallu ak njaboot sëñ Abdou Sakkoor gi ñu dem sa ndigal la defe ko ni ko sëriñ Mountakha bëggee dellu si waat nag toog tàllal ko suñu loxo déglu ko kon sëñ baa ngi ñaan yàlla nañ si àgg ak jàmm te lépp luñ si sàkku yàlla nañu ko am bis bi nag mi ngi tombe ak le 16 février muy le 16 si weer ñu jëm bu weeru janvier wii dee weer wi si topp di février fukki fan yi ak juróom-benn kon népp nu bokk ko waajal incha allahu àgg fa def ko ni ko sëñ bëggee dellu si waat si kanamu sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. laa ilaha illallah laa ilaha illallah.